Galotal, chargé de la communication du mouvement ASCAW action de soutien de solidarité à Karim Wade. non li ma doon wax rek mooy euh, xippiloo bëtu président de la république c'est aussi simple que ça parce que ku ne xam ne ni yàggul tara le 23 juin tout le monde disait que le mouvement Y en li tax Abdoulaye Wade daan ñoo ko def. mais li nu gën a jaaxal mooy que ni le mouvement Y'en a marre kenn déggu leen fenn à un certain moment problème bi am assemblée nationale ñu dégg ñu ni le mouvement Y'en a marre reprend du service et puis ça va avec la stabilité la stabilité du de de la présidence de Moustapha Niass à l'assemblée nationale. donc trois dernières années yi kenn déggu leen parce que boobu Moustapha Niass mën na am tey mais ñàkk suba léegi bi mu demee ba nga xam n que cinquième wër na on entend que le mouvement Y'en a marre Y'en a marre musiba lan cim réew Y'en a li ñuy prôné une jeunesse républicaine du ko def Y'en a marre li ñuy prôné mooy yàq Y'en a marre li ñuy prôné mooy yàq ay mairie mooy taal ay dispensaires donc bu ñu demee ba jóg ni ñooñu reprendre nañ du service mu am lu mu considéré am benn euh, benn vraiment violation de de droit au niveau de l'Assemblée nationale on se pose des questions. on se pose des questions à savoir pourquoi Y en a marre bàyyi ba nga xamee ne que Niass am na cinq ans ñuy soog a di xeex loo xam ne si Macky Sall bu ko neexee xeex bi yam fi nan la koy neexee mooy que ni mu jox le groupe démocratique et des libéraux seen cër seen cër mooy ils benn présidente bu ñu mooy Aïda Mbodj ñu jox ko place am jàmm ne ñooy l'opposition régnera démocratiquement au sein de l'hémicycle mais bu buñ fi jëmee indi loo xam ne si nekk fi leneen lu fi am ëllëg loxo Y'en a dina ci dugg te bu boobaa damay wax ni ñun élection la ñu mën a gañee Macky Sall am na ci koo xam ne si tey bu réew mi takkoon bu fi Macky Sall jógee moom la c'est le président de l'Assemblée nationale kon ñuy ñaan le président Macky Sall na ubbi bëtam xool mais xool bi dafa tegu ci yoon yoon bi mooy lan indi le réglement intérieur bi normal au sein de l'hémicycle ñi am seen droit jot ko l'opposition que son opposition soit représentée dignement et démocratiquement et dans les règles les plus transparentes moo gën indi xeex boo xam ne si mën na jur leneen ñu naan Y'en a dugg na ci M23 judduwaat na nangam ak nangam ak nangam donc à bon entendeur salut je demande à tout le monde de suivre mon regard parce que toujours il est de coutume qu'en réalité celui qui rame contre le sens du courant fait rire au dafa am dex yoo xam ne si gone du fa sangu parce que jasit yaa ngi nuuru ci biir di xaar jërë ngeen jëf